diggante Laye Birisili ak Atou Signor Bada Dione Laye Birisili jigéen kër Mbaye Fall Atou Signor Laye Birisili luy seen dernier débat de général a ngi si digg géew bi

Laye Brissilé Atou Junior. waaye général a ngi digg réew mi def ay démbam ak ay daxaaram waaw. ànd ak Ville désert. waaw ànd ak Diallo ànd ak ku ne Malika yooyu. arbitre baa ngi leen di xool arbitre bi xool na aatu ñu xool ndax niin na wala niinul dafa bari contrôle na nag am na nakay rek waaye nag ah laay bii si moom le 31 octobre ci la stade bi Fallou Ndiaye moo woote arbitre baa ngi wax ak ñoom diggante laay bii si at at ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu arbitre baa ngi la wax ñoom lamb na ba saaku yi fekk ji lu kenn ay waay ndey Fatou Adama Jali kookoy ndey Fatou Adama Jali yàlla bat bi wér ndeysaan arbitre baa ngi wax ñoom arbitre baa ngi xool zizi ndax pare nañu pare ndeysaan Ndeye Fatou Ndeye Fatou Adama Jali Ndeye Fatou Adama Jali jarke jam xoolal ma général bu Malika xoolal ma général bu Malika ka daw ñëw fii am Moustapha la ndeysaan ndeysaan xoolal ma lii général Malika yow di dox ko fils de Balla saan albaay wax Zizi Laye Bruce Lee ak Atou ñu ngi leetoo ñoom ñaar Laye Bruce Lee ak Atou Laye Bruce Lee ak Atou Laye Bruce Lee ak Atou Laye Bruce Lee ak Atou ba jalal Laye Bruce Lee ak Atou Laye Bruce Lee ak Atou Laye Brise xeex xeex bu arrangé waaye Atou jàppante bi moo ko ëpp waaye Laye Brise cokkaas na génnaat Laye Brise Laye Bruce ak Atou daan Laye ñaari espoir ñaari espoir yaa ngi noonu nuyu mbokk internet baax a baax a baax nuyu waa Kër Mbaye Fall rawatina zone technique numéro un suma grand suma xarit maa ngi koy nuyu eh Atou na Laye Bruce def na góor droite Laye def na góor droite dem nañ ci saako ñoom ñaar dem nañ ci saako ñoom ñaar saako yi eh mais laaj lu nii laaj def na ko góor droite na ko waaye aatu daa replié aatu daa replié laaj laaj jàpp na laaj jàpp na aatu tëru ko korkolos bi laaj ngi góor laaj ngi hyperkil laaj ngi hyperkil laaj ngi hyperkil eh. daan na ko laaj bi daan na ko. laay brise li daan na ko ah, Thank you. Sadia Faye lañ ci def de Sadia Faye léegi nag xale yaa ngi noonu xale yaa ngi noonu combat spécial baa ngi noonu diggante dox si diggante Tek Choc ak Sa Diakhaye spécial le neuvième combat Saan Sa Diakhaye Tek Choc Sa Diakhaye ak moo takk bande bu xonq bi ci bopp bi Sa Diakhaye moo ñaar ñu ngi lewtoo

Tek Choc ak Sa Diakhaay Tek Choc ak Sa Diakhaay Tek Choc Sa Diakhaay Tek Choc Sa Diakhaay xeex ak moom Tek Choc door na Tek Choc Sa Diakhaay Tek Choc moo tax moo soog a si bopp bi Sa Diakhaay moo dem dem lu weex li Sa Diakhaay koy tax Tek Choc Sa Diakhaay Tek Choc jóge benn baraak Sa Jaxaay jóge waalo diggante Sa Jaxaay na ko Jaxaay dàq na ko door na ko mu kaaw Tek na ko Tek Choc na ko Tek Jaxaay Tek Choc Tek Jaxaay Tek Choc na ko jaxabal ba oh Tek Choc Jaxaay dañuy bëre nekk ci écurie bi di bëre di daj lu metti kon ñun lu ñuy daj lu metti nii lii nii nii nii nii du dara si ñun benn benn seconde rek la wala benn une minute wala deux minutes. waaw lépp lamb la rek lamb la rek parce que ñun dafa am ci lu ñu jugee nekk ci yoon kon ñun bu ñu nekkee ci yoon bu ñu jugee gox jóg bu ñu jugee mbooloo jóg kon dañuy def naa nga teg suñu bëre ci yoon. waa parce que ñun làmb dañ ci am cër te incha allahu rabi yàlla baax na. waaw loolu rek parce que moom dafa andi xeex te bu andi xeex ma andi xeex day metti rek waaw moo tax mu andi xeex ma jóole moom bëre. waaw loolu gaa yaay bi ñoom jaxaaru lu dañu am combat yàlla na yàlla may ndam ah ñoom kadam xam nga ñoom appliqué gaa yëpp ñi am combat yàlla na may ndam waaw. sama sama instant laay déglu sama instant ak sama gars yi waaw ndax doo joxe bopp rajo Lamine ñii ñoo sama tànk incha allahu rabi di gërëm nag ñi may àndal ku si maa ngi koy gërëm bu baax baax Bira xam nga Bira maa ngi gërëm di gërëm xam nga may laay di gërëm sama gars yi taxaw nii fay di gërëm mairie Malika bi tey dafa def lu rëy. déplacement ak dérangement ñëw sama gàlle andi ma 17 xaalis bu bari kon maa leen di gërëm baax baax baax di gërëm autorité Malika yëpp waaye di gërëm tamit monsieur le ministre Abdou maa ngi nuyu bu baax a baax a baax a baax Paolo Samba maa ngi nuyu ah incha allah Assane nuyu naa la. maa ngi lay siyaar bu wér. naka tey. alhamdulilah. Assane nan nga waajee journée bi. waaw maa ngi nuyu Sénégal yëpp di am mbégte boo tëggee lamb yàlla suturaal la lépp neex lépp am jàmm da sant yàlla. gars yi ñu ngi kaas ñu ne Assane da ngaa war a yóbbu arène nationale. non fii laa am date bi Iba Mar ma jox Iba rek laa mën a tëgg. waaw combat bi métti woon na si Assane trop. waaw maanaam nag lu waay muñ mu neex dégg naa si lu ne mais sant yàlla gëm sama bopp te xam naa ne mooy jëkk te mu mujj alhamdulilah. loolu seen ñu seen Assane kañ. dans une semaine rek di nga dégg lu leer incha allah. dans une semaine. waaw kañ laa ñëw di foncé. dinaa la woo nga ñëw sama xarit. naka tey borom SBT Média. boobu nday am diggante ak yaaw fee nu mu demee léegi. waaw yow xam nga moom dafa soof. te gis nga nu ma ko def ma ko bëtt jaajëfal dama koy wan maanaam dama koy wan amateur rek kii du mën moom gis nga nu ko def. dama ko jàpp bëtt ko jaay ci folaay yu ko yokk ko. kon buñ la session buñ la session doo bëre moom. non yaaw jaal man man naa man ku ma ku ma fekk may bëre yaaw jaal la may wax wala ay booy comédien yu soog a dugg ci làmb la lañ may wax fan la jëm fi ma jëm muy maanaam su ci mel Tafa Gueye numéro 2. Torobaxa Torobaxa instant yii combat boobu moom. gis nga ni mu fi def armée. parce ma daan ko man déglu ma ma dama lay xool xam ne bu ñu bëree ma daan la Malick Ndiaye noonu la demee tey boo xoolee Malick Ndiaye moo ma raw ci làmb amul leneen bu te parce que dama dama koy dama ko xool gis ko. ma xam ne kii bu ma jëlee ma koy defaral daan ko. kon nga wekk ne yow mën nga kaa daan. fi ma ko wekkee rek muy maanaam sama gëm-gëm ma dama am fit ba du ma tapet te moom day daw rek fi la doon bëre Abou Ndiassé di daw lamb ji yëpp te man maa ngi mun du daw xale bu ndaw laa. kon bu ñu la seetee si pare na. Serigne Touba Mbacké pare naa wala mbay Guy gi. wala kan Mbaye Guèye Mbaye Guèye instant maa moom ranking la de lu waral loolu ah, parce que na bàyyi Aziz Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye la ah mu dégg Aziz Ndiaye toog na fa ay tiwaawal mu ah. ay sama papa Aziz Ndiaye du sa benn papa Aziz Ndiaye sama Aziz Ndiaye la na bàyyi Aziz Ndiaye nag waaw dinañ ci waxtaan loolu man ak yow non dañ si wax dama bëgg nga seese ma ñu waxtaan si loolu du Mbaye Guèye gi <laughs> waaw tam man ku si mel ne ay Daouda Mbow international ñooñu dañoo nekk sama ginnaaw di nuyu Cheikhou Kouyaté gisoo moyen bii ma sol Cheikh Kouyaté moo ma ko jox di nuyu Zara bu baax jabaru Cheikh Kouyaté di wax ne Cheikh Kouyaté yàlla na ko yàlla defal jàmm waaw di ñaanal mbëru lii dafa neex maanaam Iba Mar dafa bokk ci làmb ah. te parce que yow xoolal ñaata at Iba Mar bi tëj yàgg na déggoon naa sax ñu naan dañ koy tëj kenn dootu fi bëreet mais loolu yow loolu xam nga ni yow loolu mënul nekk maanaa yéen maanaa te parce que Iba Mar fii dafa bokk ci waaw fii dafa génne ay mbër génne fi ay ndaanaan waaw man fii laa génnee fii laa daanee nëpp fii laa daanee jadi jadi fii laa daanee booy Texas fii laa daanee Gambie bu fi nga daan daanal lu ne. fi laa daan daanal yëpp di eggale fee arène nationale. amal maa ngi ci waxtaan barke Serigne Touba Mba. waaw waaw làmb ji nga xam ne lu ko waay mën a dimbalee dimbalee ko léegi nag may leen ayca taxaw